jërëjëf mbokk mi ala kulli xaal géntu suuf am na yu ci aji yu bari ndax suuf am na ay tegtal yu am solo yu mat di bàyyi xel ay ëpp ci gént suuf nag kun ko jox wala ngay li saxaar lu ci ëpp soxna lay tegtale ndax suuf moom mën nay tegtal tamit kilifa mën nay tegtal tamit di wut loo doom teewoo jàppandi nga gént ñu jox la suuf mën nañ la xamal dana jàppandi euh, mbokk mi nga xam ne day listixaar soxna gént gis terrain bari ay xeer nga xamal ne sëy bu bari ay jafe wala sëy bu bari ay gàllankoor ba mbokk mi nga xam ne day listixaar soxna gént gis fu naat fu bari ay garab dañ koy xamal ne sëy bu am barke la sëy bu am xéewal la sëy la boo xam ne njaboot dana ci am incha allahu rabbi kon gént suuf teg tali bari na waaye mbokk yi nga xam ne dañuy faral di yittewoo gént kese ñoom vocal lañuy envoyé wax seen gént waxtu wuñ ko dégloo dinañ leen tontu ñi nga xam nag am nañu lee lu gént ñoom bu leen neexee mën nañu woote bu neexee mën nañu envoyé vocal eh, kon ñi nga xam ne gént rek mooy seen yitte ñoom mën nañoo envoyé vocal ay ñam am jafe-jafe nag. ñu bëgg ko leen seetal mbaa ñu bëgg ko leen li listixaar wala ñu am lu ñuy sàkku eh, bëgg ku leen ci ñaanal pour mu sotti wala ñu kayit pour génn yëpp incha ñooñ bu leen neexee mën nañoo woote ñi nga xam ne incha allah dañu am jafe-jafe nag ci wàllum tawat mu xam hémorroïde wala nduxum siti wala yu aju ci yu mel noonu wala mbokk yi nga xam ne yenn saa dañuy faral di am mbokk moo xam ne daa dem na mër kenn xamatul ci lu mu nekk daa réer wala daa faatu wala mu ngi ci loxo loxoy jàmm yooyu bu leen neexee incha allah rabbi mën nañoo woote ñu jox leen ci ay tegtal yoo xam ne yàlla mën na cay def tawfeex kon numéro yi mën ngeen ko jël 78 443 75 27 78 443 75 27 boobu mooy numéro bi nga xam ne kuy woote ci ngay woote waaye ñu bëgg a envoyé message vocal numéro bi incha allah rabbi amna na whatsapp kon nañ ko baye xel bax bax mbokk mi nga xamne da daa di gas suuf diko lek nak lolu bax la alal la ju may sakku joo xamne man na ci jot ki nga xamne da daa suuf si di xar melni aduna bi wajjo tukki lolu momi it nekkul lu gën loolu la ay gàllankoor la ba tay tamit mbokk mi nga xamne da daa melni suuf ci da koy loolu tamit gàllankoor la ci moom benn xat-xat wala ak jafe-jafe wala ay gàllankoor yoo xam ne mën na koo gaar te mën naa bàyyi coow ci ku jigéen ba tey tamit mbokk mi nga xam ne day faral di listixaar lu jëm ci soxna gént gis suuf soo xam ne daa am xorom comme suufu géej yi nga xam ne day saf xorom dañ koy xamal ne du soxna si am njaboot mais soxna soo xam ne njaboot mën na ko bañ a bari la eh, ba tey tamit mbokk mi nga xam ne daa feebar gént ñu lem suuf ba mu egsi si moom dañ koy xamal fan bu jeex ci moom ba tey tamit ki nga xam ne day li saxaar soxna gént ñu koy jaay ab terrain eh, mu koy jënd mënees na wax ne soxna su baax la soxna soos mi yootu incha allahu rabbi yàlla mën naa dogal mu jot ci eh, ba tey tamit mbokk mi nga xam ne day je daa suuf si di yëngatu loolu tamit am tiit lay tegtale tiit lu bari eh, ba tey tamit mbokk mi nga xam ne daa gént feebar gént di jaay suufam lool tamit dañ koy xamal ne bu doon ku feebar la ay fan bu jeex la aw tàggatoo la ci moom ba tey tamit gént toog ci kaw suuf tamit lu baax la ak yëkkatiku la ba tey tamit yokkute la xéewal la mbokk mi nga xam ne daa gént di dóor ci jël loxoom di ko dóor ci kaw suuf loolu tamit bu doon koo xam day lijjanti ci lu jëm ci wàllum tukki mën nañ koo xamal ne loolu incha allah rabbi naa jàppandi da du ci am benn gàllankoor ba tamit suuf day tegtale kilifa waaye ba tamit suuf am na ci ñoo xam ne jigéen lay tekk ci ñoom ndax suuf tegtal yu am solo yu yu mata a bàyyi xel baax baax kon gént terrain bu yaatu loolu baax na bu dee soxna la soxna su baax la soxna su am wërsëg la bu dee ki nga xam ne day listixaar soxna gént suuf terrain boo xam ne daa am ay xeer ak ay ndangmeen dañ koy xamal ne sëy bu bari jafe-jafe la waaye sëy la boo xam dana bari ay gàllankoor